ayca salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi internet yi ñuy suivre nuyu nañu leen ziar leen.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 Aïcha lundi jot na tey nag mission des émissions ñu ciy jàkkaarloog Sanjoogu Meng comme leen di rek mu indi xalaatam ci yenn kàddu yi nga xamante ne ni gis nañ ko ci yenn émission yi waaye nag balaa ñuy xuus ci suñu waxtaan dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog internet yu ñuy suivre ci maa ngi lay nuyu. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziyaar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaan ci yow.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 di am ci ñëpp mbégte ak kontaante waaw di kontaan ci jàkkaarloog yow macha allah. alaaj nag bul fàtte ki ñuy teg pression chaque jour nag ci émission bi muy bàyyi Assane Missiré <laughs> ah, moom daa mel ni mooy coordonné affaire yi tax dugg da nga pare mun la nga émission des <laughs> bousculer affaire yi li muy moo doy waar moo tax jarta nuyu parce que dafa am koo xam dafa jàpp ni daf ñuy torturer fi mu toll nii ah, pour ñëw def émission non non pour def émission bi mooy boo ko toppee mu nekk torture <laughs> loolu la quoi loolu moo tax euh, di ko wuyu euh. mm. du doy ah. ñu koy nuyu nag bu baax moom Mbaye Assane Mesere meilleur chroniqueur daanaka daal moom boo ko waxee lool dey siiñ ba macha allah xam naa ne lu ko neex la vraiment donc nag yàlla na sax tey nag euh, daanaka actualité bi du génn nag yi nga xamante ne ni moo di suma sonk ndax ci week bi bi daanaka plateau boo gis rek coowam la ñuy nemmeeku kii nag ñuy wax Ababacar Fall bu Gradel moom tam ñëw na ci nomination boobu nga xam ne président Macky Sall euh, def na ab signé daal di rajjee ki nga xamante ne ni moo di Doudou Ndir teg fa keneen moom nag indi na ay explication ci loolu ci kanam tuuti daan leen ko dëgtal ngeen seetaan ko alaaji indi ci xalaatam muñ ca noppee coowal ki nga xamante ne ni moo di Aliou Sow bu Walfadjri ak ki di Nit Dof ñu dalal leen fële ci Sen TV ci émission boobu ñuy wax ndumbelaan waaye nag dafa mel ni ay coow la mujjee euh, am ci seen diggante ñaari kàddu yu ñu doon werante ba ñu dagg xalaat ànd ceeg euh, Alaaji Sa Ndiogou ay Ayib Daffé ñëwoon fii ci Walfadjri ci émission bi di Pencco moom nag euh, àdduwaat na ci euh, doxalin bi nga xamante ne nii moom la président de la république Macky Sall di doxalee jëm ci li nga xamante ne ni boobu ba tey ñu ngi koy topp ngir rek jotte ni ay fiche Ngagne Demba moom itam nee semaine bi ñuy dugg daanaka mooy biir semaine bi te altine bi nee na nag Ayib Daffé buy delluwaat fële ca DGE warul nekk moom kase askan bi yëpp ñoom ñoo ko war a topp ci loolu muy dem di sàkku boobu ba tey mun ci fexe teg jot ci moom nag sàkku na ci sénégalais yëpp ngir rek ñu ànd ak moom ndax mbir mi nekkatul euh, coowal Ousmane Sonko kase dafa war a nekk loo xamante ne ni combat la pour euh, daal di xeexaat amaat suñu démocratie bi ñu amoon temb ñii daal di yaatal léegi ànd ak Ababacar fal bu Gradel ay kàddu yu mu yëkkati jëm ci nomination yooyu nga xamante ne ni def nañ ko fële ca Sénat mu wax ci euh, ñu dem xooli ko ànd ak Modou Diouf ak Abdou Top que boo demee ci article sept li nga xam ne moom moo wax ci maanaam affaire Sénat euh, ni leen war a ak naka lañ leen war a euh, euh, jëlee foofu dafa wax ne képp koo xam ne en tout cas membre Sénat nga ñu nommé la fa dañ leen nommé pour un mandat de six ans qui est renouvelable par tiers tous les trois ans loolu amul dañu xëy rek gis ne ñoom ñëpp daanaka dañ leen a nu mu tëti donc dañ leen maintenant leneen li ci nekk mooy protocole additionnel de la CEDEAO dafa wax ne fii ak maanaam juróom benn wee avant ñuy def élection yi waruñu def benn changement substantiel maanaam changement bu xóot ci maanaam loi électorale yi te acteurs yi vraiment ànduñu ci or boo xoolee ba xool loolu amul donc parce que Sénat dafa nekk institution boo xam ne bu am solo la ci wàllu contrôle élection yi ñu xëy dàq ñëpp te waxtaanuñu ko ak maanaam euh, yeneen kuréel ku jóge ak acteurs politiques yi ba nit ñi am ci xëy na euh, gis-gis boo xam ne donc bu bu bu bu méngoo la loolu déjà problème la boo xam ne vraiment ñun dañ koy dénoncer la ca mooy loi bi wax ne buñ leen di tànn dañ leen di tànn après consultation dafa am yoo xam ne mooy kuréelu avocat yeeg défenseur droit de l'homme yeeg universitaires yi au moment dañu war a consulter ñooñu ñooñu joxe liste boo xam ne maanaam liste bu ci nekk ñetti nit président daal di tànn mais depuis quand même mën naa xam ne un certain nombre d'années fii dix ans euh, loolu amul Aïcha mi ngi noonu moom Ababacar Fall alaaji dégg nga kàddu yu mu yëkkati jëm ci euh, nomination yooyu nga xam ne président Macky Sall def na ko nee na nag euh, ay élection buñ ko dëgmalee bu desee juróom benn weer waratuñu laal benn kuréel bu nga xamante ne nii dañ ko teg ngir muy superviser élection yi nomination yi yow euh, ban euh, lecture nga si def. waaw Ababacar <coughs> bi ñu ngi koy nuyu <laughs> xam nga ah, Fallen yi seen buur laa <laughs> ko sa jaam la waaw mais ñu ngi koy nuyu di ah, ah. rafetlu bu baax leeral yi nga xamante ni wax na ko ci penc bi muy lu am solo mm-hmm. man parfois damay wax ni borom xam-xam yi ñoom ñoo jaaxle ci réew mi waaw parce que li ñu jàng ak li ñu xam mm-hmm. jàpp ni nii la yëf yi war a doxe léegi yëf yi dafa soppeeku ba yéem leen mm-hmm. xam nga bésub bii ñi ngi xaar ab dogal ca CEDEAO mm-hmm. te lim la wax nii rek mooy violé nañ dogalu CEDEAO <laughs> ki fooy violé dogalu CEDEAO bu la waxee de la dana jëfee dogalu CEDEAO bu war a ñëw alaaji la preuve rek mooy Khalifa Sall amoon na fi. <laughs> ak doomu Abdoulaye Wade muy Karim c'est que c'est que c'est loolu mooy li nga xamante ni mooy lu mm-hmm. bi ñuy wax nii. CEDEAO joxe dogal ci mbiru Ousmane Sonko et pourtant mbirum Sénat bi. Mm-hmm. nga xamante ni bi moom la CEDEAO wax ne. Mm-hmm. bu tollee ci nangami weer juróom-benn weer kenn waratu la laal. tas nañ ko kon loolu dalay wan ne la. ñii moom dogal ak bu fa mën a jóge pare nañ ñoom bu leen intéressé wut intéressé wu leen waaw maanaam li nga xam ni moo leen ñor moom la ñuy kii looloo tax nag borom xam-xam yi di am jafe-jafe parce que dañuy tënku ci loi mu nekk lu leer loo xam ne lu ñu bind la ay nit jàng ko teg ko tey dii nag ñu ñëw di ko doxalee nu leen neexee selon bëgg-bëggu nit te loi bi biñ koy def defuñu ko ngir ma sàmba nii ngir ma demba mm-hmm. dañ ko def ngir sénégalais yi mën a dëkk ci réew mi xajoo ko waaye bu ak jalgati di am loolu mën na jur lu ne si Lamine Niass yàlla na yàlla dolli ay leeram euh, kàddu gu ko neexoon la gu mu doon faral di répété réew moo xam ni amul droit amul ki mu ne nit ña jub ca kaso ya ji dëkk loolu ñu ngi koy gis te pourtant loolu bi ko Sidi Lamine di wax mbir mi demee wutoon nii donc nga gis ni Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum wax ne réew mu amut yoon nu fa nit di dëkkee maanaam moom nan lañ mën a dëkkee ci fu amul yoon musiba la et pourtant fi mu toll nii tey ñun li nga xamante ne bi ñëpp àndoon nañ ci nangu ko ne lii la yëf yi war a doxee. tey jii léegi loolu mbir yi doxee tut noonu mhm. maanaam lii ñëw moom leneen la lu wuuteeg li nga xamante ni bi moom la nit ñi di gis mhm. donc loolu nekk loo xamante ni euh, ay mbir yu doy waar la donc nag mais lii boroom xam-xam yi def mhm. dafa baax ñu koy wax ci pénc mi parce que bu ñuy def li ñuy def te kenn waxut day mel ni lu normal la mais il foo nit ñi di génn di wax ni yëf yi warta tëdde ni nii lay tëddee bu ko defee sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoom di uh-huh. comprendre li nga xamante ni bii mooy yëf yi mais alaaji est-ce que tamit ki ñuy waxal mi ngi dégg parce que boobu ba tey a chaque fois da ngay gis muy tëral bañ na ko ba dañ ne même mbir yi sax boo koy soppi waxtaan daf si war a am certes moom am na droit ñu jox ko pouvoir exécutif muy exécuter mais ban doole moo romb e-, exé ba tey jii nii ngay jël sa ay ndogal nu mu la neexee te sénégalais yi toog di seetaan comme ni ñu koy defee boobu. non du moom la ñuy waxal de waxuñoo moom de parce que moom xam na ko lii. Ah, mais sénégalais yi kii bu génnee di wax. waaw sénégalais yi xamut lay xamal. parce que dafa am sénégalais yoo xam ne boo leen xamalut dañuy jàpp ni lii normal na ñooñu lay waxal mais waxut ak ñi ko def ñi ko def ñoo gën a xam yëfi maanaam dañoo def li leen neex lañ def dégg nga ko nañu war a tànnee ñi nga xamante ni ñooy membre ya dégg nga déggu jaaru jaaruñu sax ci yoon woowu. Mhm. kon loolu daf la daf koy wax ñi nga xam ni ñoo xamul yëf yi ni mu demee ñu mu xamal ñu ko ñu xam ni nii la yëf yi war a tëddee te tëddeewu ni loolu day dellu rek ci ki nga xam ne moo jiite léegi ni nga xam ne noonu la bëgg a yoree réew mi nga gën koo xamal nit ñi mu leer ne kii kat nii la bëgg a yoree réew mi. loolu c'est très important déedéet waxuma ñu bàyyi ko ñu kii de mais loolu sénégalais bu ne dugal na ko ci boppam xam na ko waaw sénégalais bi xam li ngay def nag ba noppi nag toog di la déglu. Hmm. defe naa ni boo dee borom xel tuuti nga def très attention. parce que ki xam li ngay def ba noppi mu toog di dina lu bàyyi la rek ngay def war nga def très xam nga président Macky Sall mi ngi dem rek. Mm-hmm. mi ngi dem rek. waaw ah, mais dem na xam nga wolof day wax ne wax du jeex waaye dana sës. jëfit du jeex waaye dana sës du fekk lu trop tard amut. Ah. day am rek ñenn ñoo xam ne xam nga ñëpp bokkuñu temps. temps mbir mu individuel la. léegi ñëpp bokkuñu temps parce que yow li ngay jàpp ci yow yeex na hmm. am na koy jàpp ji moom ne gaaw na hmm. li ngay jàpp ni gaaw na am na ci ko muy jàpp ni yeex na hmm. donc temps problème mu nit la waaw peut-être am na ñoo xam ne tey jii boo nee trop am na ñoo xam ne fekkee wuñu ci période bi ñuy wax nii anañu ñu ngi fële comprendre kooku kon mbir mi amatul gaaw ak yeex ci moom maanaam moom fekkewut sax far comprendre mm-hmm. maanaam moo tax tubaab yi ne il n'est jamais trop tard de bien faire mm-hmm. donc loolu lu am solo la te Olof Ndiaye nee na kenn du la may lépp it nga jël lépp donc euh, dañuy euh, daal di euh, seetaan nit dof ak Aliou Sow bu Walfadjri seen coow ba amoon fële ca Ndoumbelane aljuma bi ñu génn ànd ak Moutou Diouf parce que je savais où je partais chez les blancs mais xaw ma woon lan fay fekk sama bajan yar ma bis jot nday ji ma jur ne yow indi dama leen di indi France parce que xëy na mun ngeen am chance fii doon fonctionnaire à l'éducation nationale en France on a fait le collège on a fait le lycée on a fait la série on est passé à la Sorbonne à Paris 1, à Tolbiac. Après, on a été à l'école de notaire de Lyon. On a fait du droit patrimonial. On a fait gestion de patrimoine à l'UT de Grenoble. On parle pas de vous. Ñun ci réew mi lañ parce que xam nga te taire parce que damay il faut nga arrêter. On est pas là pour vous écouter. Nga naan ñu Sorbonne ak ay Dordogne. Waxuñu ci réewu Sénégal, problème sénégalais. On est venu, hey, moi je suis déplacé pour ñu mu may wax ay sans flamme. di nga noppi nañu wax ci suñu ñuy tegu la fii ci réew mi ci ci arrestation yi wala ci problème Ousmane Sonko wala ci DGE e wala ci yeneen. si yooyu lañ ñëw mais kii kii kii arrête avec son lui il aime trop faire son cinéma plateau bu mu dem il commence à faire son loolu ça l'impression que yow rek la impressionné. Ah. il faut qu'il arrête. mais dafa am lu muy lu muy expliquer. Ah non sa personne sa personne sa personne moi moi wax ñu ci problème réew mi. mais ma personne moo tax ñu wax ci man. d'accord moo tax ñu wax ci man ba ne ma dama ma ne ma dama malhonnête. c'est vrai ba ne ma je suis de mauvaise foi. si ab sujet la ñuy wax ñëwal ci sujet boobu nga wax. comme nag dañu wax ci man dañuy wax ci man man man je suis je vais je vais dinaa ko wax de dinaa ko wax du nee nañ dama am xam-xam ñi ma ñi may xas ne dama maloon rek ñoo ne dama am xam-xam au moins sax foofu remercier naa ko waaye sama xam-xam nag man du ma ko saax-saaxee ndax j'essaie d'ouvrir les yeux ubbi sama bët xool ku si nekk lan ngay def ci réew mi merci beaucoup am naa tuuti lu ma mën nag ci àdduna xëy na nag peut-être je suis de mauvaise foi c'est bien mais comme am naa xam comme am naa xam-xam rek baax na parce que ki nga xam ne moo leen naan da nga mauvaise foi ki nga xam ne moom naan la yow yow yow yow dara kooku moo leen ne am xam-xam moo reconnaître sa xam-xam xam-xam ragal yàlla moo honnêteté euh, soo amee xam-xam te euh, amoo honnêteté ça ne sert à tout a personnaliser je termine je termine non jërëjëf euh, Modou Diouf alaaji dégg nga coow li li ko indi euh, nit ku toog di def ay éloges ci boppam du moment où ñu ngi wax ne ay milliers de jeunes ñu ngi bëtt gaal yi di dem te boo si seetee ñu bëri sax am nañ ay diplômes yoo xamante ne nii peut-être fu ñu taxawoon tey wane ko daanaka euh, ak moom li mu wane ba nit dof di ko jéem a recadrer waat loolu ban gis-gis nga si am. <coughs> waa xam nga Aliou Euh, dama ko dama ko yërëm hmm. <coughs> waaw parce que pour yow nga jox ko importance moom yëgut nii li muy wax parents yi am na importance mais daf lay bëgg a wan ne la jaar naa ci bërëb yu am importance pour yow léegi dootoo déglooti waa ji li muy wax mais da nga naan kon waa ji li muy wax am na importance ndax jaar na ci bërëb yu am importance. Hmm. jaar ci bërëb yu am importance nag taxuta am importance euh, te réew moo xam ni dañ ne plat bi nga xam ni mooy plat national bi mooy ceebu jën nit ñi di góor góorlu nan lañ war a defee ceebu jën bii mu normal nga di ñuy wax ay plat yeneen réew ak yooyu di wane sax mën a togg day des parce que nit dof da ko woo ci lii nga xam ni moom lañ bokk muy ceeb bi ne ko waxal ci lii complexe est-ce que yéen du complexe tamit. <laughs> waaw mais xam nga Aliou Sow nag. Euh, dafa dox ci bopp xam nga boo gisee ay mbiram di naqari patriote yu bari maanaam dafa ñëw jaar ci ñoom. Hmm. ñoo ko yëkkati euh, ñoo ko yëkkati ba mu toll fenn fi hmm. jekki-jekki mu dévier maanaam Aliou Sow dafa escalier la leen def maanaam jaar ci ñoom xam nga Sénégal moom. ñu bari mën nañoo ndax sénégalais yu bari parce que boo ñëwee rek am na discours yoo xam ne boo ko amee man am na ay nit ñoo xam ne dañ ma daan wax fii ne ma saa seen télé boobu ñu ngi nuyu Aliou Sow vraiment jàmbaar la ku bëgg réew mi la. ay sénégalais yàgg nañ ma ko wax. Mm-hmm. di wax ne vraiment Aliou Sow rek laay déglu Aliou Sow rek laay lool parce que ñooñu dañu gisoon seen bopp ci Aliou Sow discours yi nga xamante ne bii amoon na léegi Aliou Sow moom dafa mel ni moom ñaari Aliou Sow quoi maanaam dafa mel ni <laughs> dafa jékki-jékki soppeeku soppeeku bu extraordinaire. loolu moo tax loolu moo tax mu mere ñu bari mere ko. Mm-hmm. moo tax ñu bari jëlal ko li nga xam ne moyenne c'est parce que dañoo gis ni après dafa jékki-jékki euh, kii. nit ñi dañu jàpp ni dafa mën a. mais di wax ci problème réew mi ak situation dëkk bi fu mu toll. jaar na tamit ngay toog di wax ne man. jaar na waaw bu nee naa la wax boppam boobu. maanaam loolu mooy tax mu ne maanaam Aliou Sow maanaam dafa jombale boppam man dama ko déggee maanaam nit ku jombale boppam fi nga jaar parce que soxlawut ngay teg fi nga jaar. Mm-hmm. pour nit yi euh, pour nit ñi déglu la. Mm-hmm. nit ñi waxal waxu nit rek ñu déglu la. boo waxee waxu nit rek ñu bàyyi la xel. mais boo fi nekkee di wax ay waxu naxa xam nag duñ la déglu. Mm-hmm. te nag mënoo ne ci kaw asamaan seeg ne jaaral fu ne demal sax ba toog ak yàlla. waxtaanal ak moom. Mm-hmm. mais boo wàccee ci suuf te waxoo nit ñi waxi nit nit ñi bala. nga ëmb bi sallallahu alayhi yàlla sax bañ na ko ba bi mu ñuy yónnee nit la ñuy yónnee. Mm-hmm. mënoon nañoo yónnee malaaka bu ñëw ne eh gëm leen yàlla dañ koy gëm. mais dañu wàcceel nit nit ki mel ni ñun ba noppi di ñu wax loo xamante ni bii tey. dañ koy dégg. du dañ comprendre mm-hmm. donc moom li mu war a wax mooy na wax ak nit ñi waxi nit rek. parce que défendre say argument soxlawut ngay wane fi nga jaar. foofu la ko nit dof woo nit dof li ko wax rek coow lépp ko indi soxlawut ngay tudd la parce que nit dof voyagé na dem na fu ne. mais soxlawut muy ñëw di wax naan man maay nit dof jaar naa fii jaar bi sax. comprendre débat bi li mu nekk wuyul ci loolu mais bul di ñëw teg Aliou dafa tàmm lii. <laughs> mës naa ko tàkkale benn bis benn émission bu ñu bokk. <laughs> comprendre mais c'est parce que. dama ko xam président ngay xam nit quoi da ngay xam nit euh, ni muy waxee ak ni nga xamante ni moom lay kii ak yooyu maanaam. loolu masque la bu ñuy sol. pour nekk pour léegi ragal loola ne yaa napp la. Hmm. pour wan na nelaw ki nga jàkkaar loolu xamal ni kii du kii maanaam mooy kii jóge Sorbonne ki jaar fii ki def lii xam ay sama bàjjan loolu c'est pas important quoi ngay ñëw di wax sa bàjjan bi mu la wooyee sa tante bi mu la kiiweeg bi mu la yóbboo fële. Hmm. bi nga defee loolu jaru ko. comprendre am na ñoo xamante ni bii ci diggante pàkk làmbaay bii la ñu xamee li ñuy xam te kenn mu dox seen maayen xam nañ liy xew ci dëkk bi comprendre àddina bi léegi nekkatut fële mi ngi fii ci sa loxo li si Lamine doo dox le monde au bout du doigt maanaam mi ngi ci sa loxo bii loo bëgg a xam-xam ko yaa ngi dégg mhm. fii laay toog benn waaye di ma wax japon la fa xew ba ma am xam-xam ci japon te waa ji rek laay seetaan dool yi mën naa toog di la waxal ci japon lu baree bare bari mhm. seeni mbir et pourtant fii laa toog xam ko dewuma japon c'est que dafa am yu bari yoo xamante ne bi nga xam lépp mhm. soxlaatut nit ñi ngay wax lool loolu nekkatul mit comprendre nit ñi voyagé nañ dem nañ fu ne loolu jarte kii bu ñu lay wax waxal ci aali kalaj ji rek la ko nit dof wax waxal ci lii problème réew mi donc soxlawul ngay sol masque pour wax ak réew mi pour nit ñi ne yaa ah, non te gis nga doomu aadama bés bu demee ba yëg ni dafa am xam-xam la booba la ñàkk xam-xam. Hmm. comprendre ki nga xamante ni ki mooy ki xam mooy ki jàpp ni xamul. xamul dara. parce que saa yoo xëyee dangaa war a jàng parce que su ma jàppee ni maa la gën a xam awma lu may jàng ci yow. Hmm. mais à chaque fois peut-être ma gis ci yow loo xamante ni lu ma lu newut ci man la ma jàngee ko ci yow. Hmm. kon looloo tax déglu di am solo. parce que dañ lay wax ne la ku déglu dégg. ku dégluwul doo dégg ku dégluwul doo dégg booy wax li nga xam dong ngay wax waaye booy déglu mën ngaa xam lu bari loo xamutoon kon Aliou Sow euh, na xam ni fi ko nit dof di woo mooy nañ wax ci réew mi mais soxla wut mu ñuy wax mooy kan parce que moom intéressé wut sénégalais yi li intéressé sénégalais yi mooy li ñuy wax ci réew mi loolu moo intéressé sénégalais yi mais pas mu wax ñu ay jaar-jaaram wa ilaa mu wut émission bu ñuy wax kii kan la mu wax ñu foofu ay jaar-jaaram <laughs> ñi mu intéressé daa dem daal di koy seetaan mm-hmm. en tout cas fi réew mi toll moom wax dëgg yàlla nu ñu def ba euh, delloo siwaat lépp ca na meloon loolu la ñu gën a yittewoo jamono ji mandataire Ousmane Sonko bi di Ayib Daffé moom nag boobu ba tey gis ngeen euh, jaabante bi muy jaabante diggante DGE te li muy bëgg amagu ko ba tey dalal nañ ko fii ci Walfadjri am na ay kàddu yu ñu yëkkati jëmale ko ci son excellence monsieur Macky Sall ñu dem seetaan ko ñëwaat. li mën a wax. Mhm. yaakaar naa ni. Doudou Ndir dañu ne woon en tout cas mandat am jeexoon na bu yàgg. mais. jamono ji dafa am benn contentieux boo xam ne moom fi am mooy contentieux bu may wax nii. Hmm. te moom te moom en tout cas Sénat bi mu jiite prononcé wu nañ. voilà prononcé wu nañ ci. Hmm. te saisir nañ ko démb. yéen saisir yaa nañ ko démb. waaw démb pour mu euh, substitué wu. Hmm. maanaam lu DG waroon def jox ñu fiche. te nanguwu ko def te nanguwu ko def. bañ na ba tëddu si suuf. léegi sena am na sañ-sañu daf ko. loi may na ko. waa loi may na ko loolu nañ ko. Euh, ñaan. Mhm. pour Sénat def ko. démb ngeen ko def. démb nañ ko def. ñu jëlee ko fa tey démb nañ ko def tey ñu génne leen euh, ñu ñu remplacer ko tey. Mhm. donc loolu timing bi. déjà ça pose problème. te ñoo ngi si période processus électoral nooy mën a renouveler Sénat. en pleine période. électorale te Sénat moo ngi war a am benn contentieux boo xam ne c'est un contentieux urgent bu mu war a trancher nga koy renouveler léegi dafa mel ni peut-être jàppoon na ni ñu fa nekkoon Sénat en tout cas parce que man lu ma jàpp mooy ni Macky Sall wane na ni moom moo téye suñu fiche de parrainage si Macky Sall wane ni moo téye suñu fiche de parrainage du DG du ministre de l'intérieur Macky Sall moo téye suñu fiche de parrainage parce que mënuñoo comprendre tey euh, décision justice ñëw ministère de l'intérieur bañ ne du ko appliquer. injonction Sénat ñëw ministère de l' intérieur bañ ne du ko appliquer en l'occurrence Sidiki Kaba. Sénat ñu saisiraat ko. Sénat nar a appliquer waat loi bi parce que Sénat amul beneen choix bu dul appliquer code électoral bi. te dafa war a appliquer code électoral bi substitué maanaam lu DG waroon daf. bañ ko daf Sénat daf ko ñu changé membre Sénat yi. te kam moo ko changé. Macky Sall c' le président de la République Macky Sall. donc moom moo téye fiche de parrainage Ousmane Sonko noonu alaaji Ayib moom dafa mel ni problème bi fi mu dooree ba fi mu yam ni ñu agsi fi tey responsabilité bi yëpp daf ko jël euh, wekk ko ki nga xamante ni moo di président de la ah, xam nga li mu gis rek la wax ni yëf yi demee <laughs> parce que kan moo fa jëlee waa CEDA. moom président mooy président Macky Sall mbooleet fa jëlee. ah. te donc ñoom dañoo demoon ci Sénat pour mu lijjanti li nga xam ni mooy lii DGE bañ. Mm. pour mu jox leen seen fiche parrainage ci diggante bi ñu daal leen fay jëlee te DG moom mi ngi lànk boobu ba nëgëni. fal ku bokk ci DG nag moom dalay wan ne la. Mhm. Euh, doole ji ñu euh, ba Sénat bu waxee mu tontu ko. ba noppi daal di wax ne joxewut te moom mu nekk lantinoor bu war a jàllale diw gi warut a nekk di téewub diw parce que lantinoor moom bu demee moom bay téye diw rek problème am na parce que lantinoor moom diw gi daa war di jàll loolu moo nekkoon njariñu 2 warta jéem a kale kii wala kële ñoom Karim Wade ak ñoom kii yëpp amoon nañ ca jamono jooju nekk ñu woon ci fiche yeeg yooyu waaye joxoon nañ leen fiche parrainage ñu dem wuti ji bañ demee ba conseil constitutionnel lañ leen wax ne leen mun leen a nekk candidat donc lu tax bii yoon yëf yi doxee nii man dama jàpp ni fa ñu jëm waxoon naa leen ko fi expliqué na ne fa ñu jëm bu ñu jàppoon ni day nooy kon euh, duñ ko doxalee nii mais peut-être fa ñu jëm dañu séentu ni mën na demee neneen parce que nag daanaka mooy bal di match. ki nga xamante du jeex. ki nga xam ni. mooy joxe décision daal ne lii. mën nañ dem ba fële. seen yelwaan këpp xam naa nag moo tax wóoluwuñu. moo tax ñu indi moo tax ñu ne nañ lijjant fii parce que en tout cas xam nga fi toll nii jamono juñ toll nii. Hmm. kóolute dafay commencé di loolu day commencé di wàññeeku bu baax a baax a baax. Hmm. ci gars yi parce que gars yi tamit koo ci fal tey koo fal am na am na famille seen famille dañuy wax ak moom. Hmm. tey jii ñii ñuy soog a fal bi ñu leen di fal. biñ leen falagut amul problème mais fi mu toll nii seen i famille dinañ waxtaan ak ñoom. ne leen nag fi réew mi toll xool leen bu baax seeni mbir. am na yu bari yoo xamante man am na risque yoo xam ne du ci dugal sama fami quand toog ba njës àddina bi Sénégal gépp di la joxoñ duma ko def. bu fekkante ni sax boo li may àtte li may wax sax man jàpp naa ne lii lu normal la. ma def ko amul problème bu boobaa da nga koy def sa conscience. ak sa axulaay ak sa axulaay taala mais tey ñu ñëw indi la. loolu non seulement sax yow ci sa jëm man am na poste yoo xam ne bu ku ma ko doon fal ci jamono ji boo ma fal damay wax ne la bëgguma hmm. déedéet parce que ni mu demee nii beneen am na yoo xam am na yoo xam ne nit ñi war nañuy refuser <laughs> yenn pal yi parce que am na fal yoo xamante ni bi hmm. euh, ma jigéen hmm. war sa nangu ñu la ko am na fal yoo xamante ni bi kenn du man du man kenn du ma fajee mer parce que am naa problème ak fii ma ne la kaay li jën ñëpp gis ni da nga am pour dem dox yi mission boo xamante ni bi nit ñëpp loolu lañ gis ñi ñu fal. mais ñoom kii bi ñuy teg dañu ne waa ji mandaawam jeex waaw mandaam jeex na mais nañ war a tànnee tànnee wuñ ko mandat ba mu jeexee yàgg na mais bañ nañ war a tànnee tànnee ko bu fekkoon ne dañoo jaar ca nañ war a tànnee ak tamit li nga xam ni moom la ñu wax ne. bu ñu ba six mois des élections kenn waratul a laal mbir mi ba noppi ñu laal ko yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni war na mën a tax war na mën a tax ñu ne la ma jigéen kaay jël poste bi nga ne post bi mënuma koo jël mm. loolu dafa war a am c'est que Sénégal dañu war a toll foofu mm. foofu bu ñu fa tollee parrainage yi dañuy wax rek kii fale mais ki ñuy fal tamit daf ci am part de responsabilité parce que ki ñuy fal moom it dafa war a am taxawaay mais euh, léeg-léeg dañuy jël rek daat ne fi ñu fal diw. mais est que du bëgg lu neex waa ji keroog yaa ngi koy wax boo ne DGE peut-être dafa bëgg lu neex waa ji ba euh, lu mu bëgg rek lu mu xalaat ne diw bëgg na e ko rek nekkuma ci DGE e, e waa ji miy falaat nii yow yaa ne warul nangu ñu koy fal ci yenn yi ma ne ko est-ce que nekkul du day bëgg lu neex waa ji moo tax mu nangu ko xam nga tey man de dinaa la xamal leen mhm. wallaahi peut-être bon nit ñi dinañ wax ne moom saa yi daa nekkul ci possible bi rek moo tax muy wax lii mais jamono juñ toll nii mm. su ma président Macky Sall woo ñaar yi mooy am du dem wala bu ma demee duma ko defal li mu bëgg damay def li yoon wax mm. ñaar yooyu rek moo mën a ne du mu wax ma ma ne ko déw ma du ma dem ci post bi jaral na ma sax gàddaay mais duma ko jël mm. wa illaa su ma demee la yoon wax laay def du ma def leneen lu waroog yoon. d'accord c'est lii mooy li nga xamante ni bii tey bu boobaa nga quitte ak sa conscience quoi comprendre. Mm. parce que gis nga àddina dara a neex. Mm. dara a neex nga def nga wàccoog yow sa bopp sa jëmmi bopp yow nga xam ni wàccoo nga. ak li yoon wax. Ngagne Demba Touré nee na waratuñu bàyyi euh, Ayib Daffé di wéet pour dem di jëli fichier sénégalais bu nekk war na jóg accompagner ko ci semaine bi buy delluwaat ci euh, DGA. xam nga bon man bon jàpp naa ni euh, actuellement fi mu toll nii moom ni Ayib Daffé di def nii. Mm. pour man baax na. pour man baax na parce que mm. euh, bul fekk kenn ci jeu bu mu bëgg parce que ñii dafa mel ni am na lu ñu bëgg. lu munta ne maanaam dafa mel ni xeex bi gars yi di wax naan ay xeex yooyu dafa mel ni ñoom ñoo ko gën a bëgg mais gars yi bëgguñu affaire yooyu gars yi jàmm lañ bëgg dafa naa ni daal lépp luy ràcc jàmm mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii tey moom mooy li leen di li li métti fi mu toll nii mm-hmm. parce que tey jii dafa mel ni dafa am lu ñu bëgg mu yëngu mm-hmm. ba bu yëngoo ñu ne ah la situation bi doy na waar. léegi nag lii ak lii ak lii ak lii. donc loolu. Hmm. bu ko kenn parce que gis nga situation bi réew mi di dund ma jigéen. Hmm. wóor na yàlla dafa maanaam nit ñi dañoo stressé quoi. doo xam luy xew maanaam weer yi dafa weer yi dafa gudd sax <laughs> comprendre nga maanaam dañ ci war a yegg ba. dromb nit ñi di voté def li ñuy def comprendre nga. Sénégalais yi génn dem voté ji. voteel ki nga xam ne moom la ñu war parce que ñaar yi rek moo mën a ne. soit mu ne Ousmane Sonko day dem Ousmane Sonko dem soit mu ne Ousmane Sonko demut Sonko am candidat te candidat Ousmane Sonko mooy gën a nekk Sonko ko Sonko. est-ce que comprendre nga c'est nit ñi nañu focus ci loolu kii parce que ñoom def nañ seen dialogue ba wax ni boo amee nangami député amul problème Sonko mën na pare ne ñaari député yaa ngi dégg yoo xamante ni bii tey mën nañ jëm ñoom ci seen jëm bopp bu Boubacar Camara loolu mu wax noonu man dama cee ànd Boubacar Camara wax na ne. Hmm. changement dafa war a am te bu amut responsabilité Pastef la changement dafa war a am te Sonko dafa war a doxal loo xamante ne bi changement day am. ci réew mi changement war a am te gars yi non day am ma jigéen ñii voté wuñu lii ñuy def nii yëpp. waaw mais ki ñu war a voté bu ñu ko teewee kay. Yaya def na bu gën a gara lu indi aadama Baro ci nguur gi. yaay jàmme li mu dafa gën a garaaw li hmm. te moom daf cee boole sax di dem ci élection yi moom kii nag moom demut yaa ngi dégg te gis nga lay am donc na nit ñi focus ci li nga xamante ni bii mooy élection yi hmm. bu fi kenn jéem a bu ñu jéem a créer benn mbir. parce que dafa mel ni loolu lañ bëgg pour ñu wut. Euh, prétexte pour. pousse ay élection te élection yi mënta pousse parce que sénégalais yi dañoo sonn ci jamono ji nekk ni il faut que ñu fal koo xam ni jàpp nañ ni kii kat war na mën a régler jafe-jafe réew mi. d'accord jërëjëf euh, am na solo ñu bàyyi la nga tàggoo. waa jërëjëf ma jigéen di sant sénégalais yëpp di leen gërëm. Mm-hmm. di joxante dig daje beneen altine ci kàttanu borom bi. jërëjëf Mbengue am na solo kàddu macha allah di jaajëfal nag yéen ñu doon bàyyi xel di ñu tey commenter wéy leen nag di abonné ci suñu ay plateforme euh, di jaajëfal Modou Diouf bu baax a baax Abdou Top Abdoulaye Diallo jox leen dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.